amu yéen leen tuuti ma. non muñ mi dafa commencé may mun a may mun a man bokkum Pastef du ma politique mënuñoo wax a a wax ba ma dugg ma amul Pastef bàyyi arène politique sax moomu gën a ndax ama Abdoulaye Wade amu ko woon ci man Macky Sall ko woon ci ñoom ñëpp ko soxla woon parce que xam nañ ne je sais communiquer te mën naa amal njariñ nit ñi waaye nag loo xam ne nii dama koy wax fii suñu bëggee réew mi nañ mu ñal ñii tuuti. ah dañ leen di muñal de waaye ah. tamit lii dafa metti de. waaw d'accord mais xam nga réew rek bu ko bu ko trans bëgg a renforcer le patriarcat. loolu jigéen ñi duñu ko nangu ñun ñëpp nañ xoolal. duñu ko nangu ñun ñëpp d'accord nañ ah. ne ñun ñëpp d'accord nañ ne jigéen dafa am solo ci lépp ndax yonent bi sallallahu alayhi wa ba ko yàlla ja yónnee jigéen la ko njëkk a booleel mu taxawu ko mooy Seydina Khadija Seydina Khadija. su doon tey loo xam ne ci zahir la dañ naan ci nubuwoo gi la bokk ndax ba yonent bi jógee ci jibril ci moom la njëkk moo ko dalal suñ jàppee ci lislaam tamit dem taxawaay ba ci ay Aïcha taxaw rëy na trop parce que demoon na bañ ne ñi dàq wax hadis bu ñu waxee Aïcha wax nañ jël bi Aïcha wax kon lislaam moo njëkk fonk jigéen njëkk fa gis nga keroog dama koy wax ay ñenn benn benn waaye na ma ñeen xam nga yàlla li mu wax ci jigéen suñ ko doon wax sax danga naan de xam nga yàlla lu wax jigéen sa sa sa sa sa sa sa jabar bu ëmbee ne da ko war a fay salaire fa anfiqu alayhinna xataa yada'na hamlahunna fa in arda'na jigéen buy nàmpal danga ko war a fay encore bu nee bu bañee ne du ma nàmpal yàlla dinaan la jox ko keneen mu nàmpal ko nañ ci de waaye nag wax ko xëy na mën naa am beneen yoon danañ jiital jigéen ñi. Ah. waaye man loolu du sama problème man daal sëriñ boobu li muy sama problème mooy compétence. ah bu dee compétence ah. rek bari na ci jigéen jigéen ñi ëpp compétence. <laughs> léegi ok man maa la ko wax man kay. Ah, non xam nga lu tax lu jigéen ñi ëpp compétence xam nga lu tax jigéen ñemewul kàcc jigéen bariwuti problème mu di la détournel xaalis. bariwul wax dëgg yàlla man lay liggéey ak man ñemewul gàcce loolu détourne na xaalis ku ñemewul gàcce mooy bañ na def dara nga dal ci kaw bañ na la sàcc nga jàpp wax dëgg yàlla man a égal góor ak jigéen. a égal compétence jigéen ngay man koy loolu dama koy